maa ngi fi rek euh, Ibrahima Laahi laa tudd le nom de famille c'est Keita mais gannaaw baatu Laahi bi il faut que nit ñi euh, ñu leen ciy delloo pour ñu xam li tax boo gisee mu ñëw indi Laay Moxtaar dafa am lu xewoon démb ca Màkkatal mu karam lan moo fa xewoon bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam diggee woon ñu jël ajaratu uswat mooy xeer ba pour ñu yëkkati ko coow dafa am giir gu nekk ni ñoo koy yëkkati ñii ni ñoo koy yëkkati ñii ni ñoo koy def mu xam ne lii bu si àdduwul rek musiba mun na am mu ne teg leen xeer bi ñu teg mu ne indi leen malaan indi malaan mu ne jël leen xeer bi teg ko si digg malaan bi biñ ko tegee si digg malaan bi nag mu ne leen yëkkati leen nag famille ku si nekk am foo téye loolu wane na union wane na ñu nekk benn kon bu dellu siwaatee fii day indiwaat lay moxtaar rek pour ñu nekkaat benn. nekk ci béréb boo bërëb euh, bi waaw bërëb bi nag dañ koy sante suñu borom gannaaw bi ñu yàlla tànnee ñu nekk sénégalais toujours dama koy wax bërëb bi nag dafa nekk bërëb boo xam ni laata ñuy gane si àdduna junj nañ ko lan nañ ko junjee alxuraan moom moo wax ni walilaay mashrih wal mahrib yahdi man yasha ila siratal mustaqim waa ñu ne loolu mooy lan ñu ne walilaay mashrih mooy penku di levant di est di mbàkkatal mu karam fil Mahrib al la le coin le plus reculé de l' Afrique de l'Ouest bu weesoo fii dëkk amatu fi mooy sowu jant mooy kon fii mooy sowu jant muy fii Mahrib al Aqsa muy le couchant moo tax bu ñu nee le levant ñu ne le couchant te parmi le monde y' a 193 pays regroupés yàlla tànn si ñaar joxoñ penku joxoñ sow ñu ne fuy penku ñu ne mooy makk fa nga xam ne ginnaaw Hira la jant bi di jógee. fan lay tëddee fii ngeen ñëw tey muy extrême ouest di xunt bi fi bàyyi laa alistatam feeñ kon bu duggee rek mu ñuul bu yeewoo màkk mu weex looloo waral kaala gu ñuul géeg weex mu ne la maa weexoon maa ñuul kon bërëb bi dañ koy sante suñu borom ndax fii la lépp déparé ndax moo ñu xamaloon ni bi mu nekkee màkkatal mu karama ba yàlla dogal mission jeex fa mu denc ka fa deful ñetti fan ruum parce que ruu yonent du toog si suuf ndax yàllaa ko moom nee na suñu borom yëkkati room mu ànd ak ruy muy wër àdduna di xool fu muy mujj wàcc fan la mujj wàcc fii la joxoñ muy ngor kon bii bi mu fi wàccee sax ni fi la ëpp junni at guddi gu nekk yàlla dogal na muy génn di wër pour xeet ban xeet lay wàcc moo tax fii dafa am importance dans la mesure di possible que ni fii dafa mujj te moom mooy ki mujj fi nga ko wàccee fu mujj la. waaw loolu lépp waaw tegtale bi mooy démb ca Màkka fu mu musaan romb rek dañ koy sujjootal bu tagaan tànkam si doj doj bi jël formam ndax bu tegee tànkam si suuf suuf di jël empreinte moo waral nga gis tànk bi fii kon boo gisee nag euh, garab bi sujjoot fii wan naa léegi turam bu tedd bi ndax fii dafa bindoo allahu ak muhammad donc moo tax nag leer gi fi nekkoon moo tax garab yi di sujjoot loolu nag moo indi inclination garab yi ndax démb dañ ko doon defal kon fii da koy defaat mhm. waaw. si fii. si Ngor waa li waral loolu nag mooy mhm. gannaaw sang bi bi mu fi nekkee alayhi salaatu salaam bi Seydina Limaam alayhi salaam dafa ni woon sama woote bii kat bu moo yeggul issa mu ndaw di sama taaw dana ko yeggale dana ko mottali kon Isaa di yonent ni baayam mhm. kon bu fekkee ni moo tëdd Cambérène day yell bu ñuy commencé appel bi kam fi bàyyiloon mu mat sëkk toog fi 40 ans ba defaraat lépp ba teg lépp si yoon guy jaadu na kon ñu denc ko rek kon bu ñuy commencé appel bi dañ fay dooree bu mujjee mujjee fii ndax fi la leer gi wàccoon suba bu ñu xëyee dem yoof si yor-yor ba fa mu taxawoon woote aji boo daa yàllaay ndax baatu woote bi daxawa bi ñaari yoon la ñëw benn bi ba muy woote màkk dafa wax wa daa ila bi isni isnihi wa siraajal munir kon bu waxee waddaa ila lay màkk ah bu ñëwaatee fii nag wax dëgg yàlla da koy tollantiwaat da koy waxaat moo tax fii mu ne yaa xaw ma ne aji boo daa yàllaay kon waxoon na ko démb da koy waxaat fii waaw kon boo seetloo ma lay dollil beneen aspect bu am solo boo xam ni màndarga bi wane ni moom la ndax euh, toujours alxuraan dafay wax rabbul samawaati wal ardi suñ koy firi rabbul samawaati mooy mooy buuru asamaan ak buuru suuf kon kaw ak suuf rek moo fi nekk te nee na yonentam nëbbalu ko dara dox na ko lépp kon nga gis ni démb ca màkk bi mu nammee def kéemtaan te màkkaa nga ca kaw muy penku bi mu nammee def kéemtaan asamaan bi la jël lan la fa jël weer bi weer bi fu mu dëkk du si asamaan mu xar ko ñaar waaw bu dellusee see ci soowu jant du woote waat waa day randal suuf moo tax mu randal géej xëcc suuf jox ñu ñu dëkkee kon marqué na sama yi marqué na ardi voilà dañ <laughs> <laughs> ko war a lancer pour ñu bàyyi si xel damay lancer appel à ce que ñu vérifier waat bu baax hymne national du Sénégal bu ñu vérifier hymne national du Sénégal dinañ gis appelu Baye Laye ndax la Baye Laye sax tam woote na te tëgguñu hymne national en 1960 bi ko Senghor di tëj mais boo xoolee hymne national rek jàmm bi Baye Laye woote nañu ànd nekk benn moo fa am lan lañ lay wax épaule contre épaule. unissons la maire et les sources waaw loolu jeex na na ñu dellu di jàngal xale yi euh, bu baax a baax bu ñu toppee hymne bi ba xam ko ba tekkil ko xale yi rek billaay kër yi yu bëri ñu jàll jàll. toppante dina am boo dama leen di lancer lu nëbb lu ñu soofantal teg ko fële te lu bata bàyyi xel